da nga quitté euh, le PDS vers 2016 2017 2015 2015 nga rejoindre président Macky nga liggéey ak moom euh, aujourd'hui l'APR Benno n'est plus au pouvoir est-ce que mën nañu ci sa horizon politique est-ce que mun nañu xaar Abdoulaye Seydou Sow euh, liggéey ak l'actuel régime <laughs> non mais pas du tout ah c'est <laughs> d'abord bokkuñu ligne politique mais je dis que je leur bonne chance mais bokkuñu conviction politique aussi Macky Sall lu facilité woon su ma mën a dem foofu lenn rek la je un libéral et Macky président Macky Sall je le connaissais bien avant bien avant on discutait de tous les jours président Macky bi mu ñëw élection xam nga les gens ne savent président Macky bi mu ñëw 2012 di créer parti bi bokkoon naa ci ñi mu oo ma wax ko suma xalaat ma wax ko suma xalaat moom mu ne nii lay defee ñu dem bu muy dem élection présidentielle ñëw na ba sama kër toog ñu waxtaan bu mu waree dem mu dem ba deuxième tour. owaat na ma ñu toog waxtaan ma ne ko ma ne ko président man su ma ñëwee entre deux tours ma summi summi ko mu neen ànd ak yow mais mooy man tekkiwu ma dara bàyyi rek ma terminer ak président Wade ma ne ko mbay Jacques Diop force politique bu mu am mu ne ma si Mbaye Jacques Diop l'avait en 2000 ma ne ko Mbaye Jacques son son histoire son cursus et sa force politique n'est pas la mienne donc on discutait tous les jours de tous les problèmes du pays Macky Sall bi fédération bi amee problème fii dëgg-dëgg problème fédération sénégalaise de football Malick Gakou mu ne daf ñuy dissoudre maa ngi wax sous le contrôle ministre Mansour Faye mu ngi may dégg ministre Mansour Faye laa dajal ma ne ko seen ministre des li ñu bëgg dugal dugal président ci dissolution fédération c'est une mu ne ma anaka ah, ma ne ko le statuts de la FIFA ne permettent pas en état de dissoudre une fédération mu ne ma si ah non ministre bi ko no bu dee des na benn nit rek kenn mënul dissoudre la fédération sénégalaise de football bu dee des na benn nit mu ne ma ci lan ma ne ko mu ngi suñu statut yi te man bu ñëpp démissionné. man xam naa ne ñaar nit ñun duñ démissionné mu ne ma yow ma ne ko ma ko mu ne ma est ce que boo gisee ak président da nga a expliquer ma ma ñëw waxtaan ak moom ma jox ko statut FIFA jox ko mu ne dëgg ci ñun la mu ne mu ne dem leen ngir toppatoo seen liggéey mais bu leen ci indi coow loolu moo tax di soudruñ ah, ah. donc moi gis waa PDS defuñu ma tête de liste mu ooma mu waa léegi Ablaye comme que PDS defuñu la tête de ngay def di def di sa liste bopp ça baat te décrédibiliser les gens vont te battre là parce que tu n'as pas de moyen kaay nga ñëw benn bokk yaakaar je vais appeler Matassi Diallo en son temps c'est Matassi qui était la responsable mu ne je vais appeler Matassi Diallo nga nekk ci liste bi ngeen xeexandoo ma ne ko non bàyyil ma peese sama bopp bi ma demee peese sama bopp moom boobu laa ñëw ñu xam ni am naa poids après nag 2015 mu oowaat ma mu ne ma 2015 mu ma damay dem référendum et ce référendum est et je pense que si si on ne si on ne gagne pas le référendum c'est toute la stabilité du pays te Ablaye jàpp naa ni vous faites partie des gens sur lesquels je peux compter ñu waxtaan waxtaan waxtaan boobu waxtaan nag ak ñeneen du ma tudd seen tur fi ak ñeneen pour ñu dem référendum bi man ma ne ko d'accord na mais may ma ma dem waxtaan ak président Wade su ma demee ci président Wade dinaa ko ko wax euh, dinaa ñëwaat ci yow mu ne ma non il va ma ne ko non non moi déjà pris ma décision ma dem ci président Wade président Wade ne ma vraiment li nga def sa sa façon d'avoir fait est bien ñaanal ma. mais tout ça pour dire ma dem ma ànd ak ñoom donc man Macky Sall c'était une logique ma ànd ak moom parce que xamante nañu on a les mêmes convictions politique yàgg na mais ñi yore nguur gi tey mais ils ont utilisé l'antithèse de ce que nous nous faisions mais dama leen di bàyyi nag ñoom ñu yore seen nguur. donc c'est inconfe ah inconcevable imaginable ah, inimaginable. non c'est pas possible que mois je sois dans ça c'est pas possible xam nga man waxoon naa la fii lu nga xam c'est pas possible maintenant que des partis demain xam nga politique nag kenn mënu ko des partis demain décident d'être en discussion xam nga tey boo gisee ñu ne euh, Mary Teuw Niane mooy directeur de cabinet nga xam ne adduna mën na mën na dox waaw loolu mais Mary ñaan Niane ñëw dugg ci Pastef il avait son mouvement ëllëg mën na am ay parti dox ay coalition assemblée majorité joxe leneen à l'assemblée ay partie war waxtaan lu suma parti tënku rek ci loolu laay tënku mais man fas yéene ma nekk ci li nga xam ni moo moo am tey mooy l'affaire du projet je ne suis pas le projet